lu dëkkee ci dëkk bi nekk fi lu mat vingt ans gisuñu amuñu benn jafe-jafe lu dul toog ba benn jour rek ay nit jóge fële ni ñu suuf bi seen suufu maam la woon ndax 1451 R ñoom la ñuy réclamer ni ñoom ñoo ko moom. ñoom suñ ko moomee ñun suñuy gëstu ak li ñu bureau SNHLM wax suuf sii di 1451 R état wu Sénégal moo ko exproprié woon pour l'utilité utilité publique. ñoo dem ba bureau HLM nga xam ne état la ñu jënd fa suuf am yaakaar ni dañuy am jàmm mais boobaak léegi amuñu jàmm. ñi ngi ñëw terrain yi fi des ci ñi tabaxagul du terrain bu fi des ndax ndax terrain bu fi des amul amul benn vide boo xam ne SNHLM affecté wu ko nit. ay këyit yu leer la ñu SNHLM jox muy permis d'occuper kenn ci ñun ku ñu toog fi ñëpp kenn ku nekk am sa këyitu kër bu leer nañ même espace yi fi des nga xam ne tabaxaguñ ko koo ci wowoon borom tey mu indil la permis d'occuper donc espace libre bu ñuy wax libre amu fi autorités yi ñu dégg ndax ñun même bu ñu mënul mag lañu sunuy doom a ngi am nañ kàttan am nañ doole mën nañu jàkkaarloo ñoom. état nag balaa moo jóg li ci gën a bëri mooy mordom pistolet paak lépp génn na fi dem nañ police police yëg na ko autorités yi yëg nañ ko ñun nag suñu jaan wàcc na fi waroon a dem dem nañ fa lii nag nga gis nii ceeru population bi ñoo génn